ancienne ministre Madame Amina Lo présidente appel présidente euh, présidente appel Nous bëggoon na xam rek euh, euh, disons lan nga yëg ci demuk Sidi Lamine Nasbi. bi waaw d'abord maa ngi sant suñu borom di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam tey dama ñëwoon fii ci lever du corps bi malheureusement reporté nañ ko ci sama tour ak ci sama turu parti appel 3G euh, tristesse bu mag la yek ci sama xol euh, wax deug yalla ak mbettel gu reuy ndax Sidi Lamine dafa nekkone un grand patriote Ko xamantene dernière émission bi ma def wax naa ko nee dundam yëpp daf ko def pour xex pour droit de l'homme dundam yëpp daf ko def pour xeex pour démocratie bi jëm kanam dundam yëpp daf ko def pour diine xeex pour diine ji kenn du laal diine nitu diine la woon nitu nit ñi la woon un grand patriote tey Sénégal moo ñàkk àddina bi moo ñàkk umma islamique bi moo ñàkk kon dañ ciy profiter ñu jaale njabootam njabootam jaale umma islamique jaale peuple Sénégal yëpp ci sama tur ak ci sama turu parti di ñaan sunu boroom mu xare ko ca àjjana yi gën a kawe tey Sénégal yëpp ñoo triste wax naa ni tey deuil national moo am mu ñu décrété ko décrété wuñ ko ku nekk ci sa biir xol am nga mbetteel am nga tristesse am nga lépp ñun coalition ma dikke 2019 ñi ngi jaale askan bi ñu ngi jaale njabootam ñu ngi jaale umma islamique bi yëpp